asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziare bu baax euh, beneen laaj boo xam ne wala yeneen laaj yoo xam ne ñu ngi koy joyal jëmale ko ci coraniste yi ñi nga xam ni euh, jàpp nañ ni diine alxuraan kese la lépp luy wax yonent bi dañ koy taxañ sànni ko nële jàpp ni yonent bi amul kàddu ci diine ñooñu laa bëgg a sampalaat ay laaj yoo xam ne bëgg naa ñu indi ci ay leeral umpale woon ni boroom kër benn bu nekk bëgg ngaa comporté woon noo xam ni say xale euh, say doom dinañ am jikko yoo xam ni ak doxalin woo xam ni ak waxin woo xam ni dinañ ko copier ci yow nga xam ni au lieu leen di wax naan copier leen ci waxin wii wala doxin wii wala doxalin wii danga leen di wax ni leen copier leen ci man léegi loolu nga leen di wax naan copier leen ci man te nga xam xëy na ni li nga leen di wax naan jële leen ko ci man du alxuraan maanaam gisoo ko ci alxuraan sa doxaliinu bopp la woo xam ne suñ borom ma ko gravé ci sa xol nga di ko fa tëbbee di ko doxalee léegi su fekkee dañu topp sa logique lan moo tax ah, sa xale bi nga bëgg mu roy ci yow saw doxaliin wu rafet wala ci sa waxin wu rafet wala ci sa jëfin wu rafet te royloo ko automatiquement ci alxuraan mu jéggi la eh, dem tëbbee loolu lépp ci alxuraan parce que am na loo xam ni ay doxalinu société bi. Eh, kenn ko nekk ak ni nga koy defalee sa bopp benn mu nekk bu ñaaw wala mu nekk bu rafet yow mi jàpp ne sa bos rafet na ba nga bëgg sa xale tibbee ko ci yow lan moo waral loolu eh, baneen bi aussi alxuraan dafa mel ni eh, ab programme d'enseignement boo xam ni dañoo jox programme professeur bi mu jël leçon bi dikki taxaw ci kanam élèves yi professeur bi est-ce que dafa war a jël leçon bi rek dikk bind ko ci kanam élèves yi dem bàyyi leen fa sans pour autant mu expliquer leen lan la leson bi bëgg a wax te xam nga ni leçon bi mooy yax bi jox nañ ko professeur bi mu bind ko ci tableau bi war koo euh, jàngal élèves yi su fekkee dañoo topp seen logique professeur bi dafa war a dikk bind leçon bi rek wan ginnaaw élèves yi élèves yi comprendre jàngal seen bopp comprendre te pourtant français lay bind mbind mu leer lay bind wax ju élèves xam lay bind wante bu ko bindee ba pare est-ce que da leen bàyyi noonu rek bañ leen di expliquer mook français ñoo yem yonent bi professeur la suñu borom jox ko programme bi alxuraan mu dikk taaj ko ci kanam mbooloo mi est-ce que dafa war a dikk rek taaj alxuraan ci kanam mi noonu demoo leen ginnaaw sans pour autant mu leen lan la bëgg a wax ak roq-roq yaag liñ ci war a comprendre li nga xam ne si suñu capacité de compréhension ak àggu fa loolu mënul nekk ni professeur bi def di expliquer noonu la yonent bi def di expliquer. d'ailleurs yéen tamit yéen coranistes yi nga xam ne yéenay wax ci alxuraan damay dégg ngeen di wax benn aaya ba pare ngeen ni maanaam aaya bi lii da bëgg a wax lan moo tax yéen ngeen ni maanaam te seen maanaam jooju da ngeen a bëgg nit ñi référé wu ci daal di wax ni diw sàngam nee na aaya bi lii lay tekki dégg naa ngeen ni yonente bi amul kàddu da ngeen a bëgg ñu jëfandikoo seeni wax foofu pour dégg alxuraan ñi ci def ay vidéo di tekkal nit ñi seeni vidéo dañoo bëgg ñu topp seeni vidéo jëfandikoo seen pour comprendre alxuraan lan moo tax ngeen bëgg a samp seen ndox ci alxuraan dugal seen ndox ci alxuraan autoriser seen bopp ci alxuraan man cee leeral man cee def ay vidéo pour nit ñi référé wu ci seen leeral yooyu ak seen vidéo yooyu ba pare ngeen bëgg a seppi see seppi loxol yoonante bi ci alxuraan daal ni moom amu ci kàddu loolu contradiction flagrante la explique leen ma loolu lan moo ko waral ni ngeen bëgg a saxale seen i wax nga xam ni lépp loo bëgg nit ki comprendre ko dañ ko indil ba pare expliqué ko expliqué ko aaya bi léegi ki nga xam ni ci moom la ñu wàcce alxuraan mu gën a dégg ñëpp alxuraan bu waxee leeral ci alxuraan nga ni kooku amul kàddu ci alxuraan loolu lan lay firi ak lan lay niru ak lan lay wundu lan ngeen ci jublu ak nan ngeen ko mën a expliquer ba ñu comprendre euh, façon doxalin woowu ngeen di doxale